sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barakati seexil xadiim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala bokki auditeurs yi ak bokki auditrices yi nekk ci àddina wërngal kàpp ñoo ngi am mbégte dellu siwaat di leen nuyu di leen siyaare di leen baloxaq te di leen bal tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di dellu siwaat rek ci seen émission les sénégalais diaspora muy seen émission immigré tolloog numéro deux cent un numéro deux cent un lañ toll fas yéene ci nag dikk ci waxtaan wu am solo woo xam ne jàpp naa ne ku ko dégg tey danga nga bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax a baax sak sunu comportement sunu digg ak réew yi tubaab yi ñu nekk ak sunu digg ak sunu boroom sunu digg ak lislaam ci perte bi nga xam ne perte nañ ci lu bare bare bare bare surtout nag lu jëm ci wàllu famille gannaaw ba loolu jàllee ñoo ngi nuyu Sénégalais yi nga xam ne ñoom laa nekkal ci Europe ci réew mii di Italie waaye ci région Toscana ci province bu Siena ci dëkk bu ñuy wax Puggione di am mbégte bu baax nag di partagé wu ak yéen émission bii di ñaan nag foofu waay mënti nekk rek ñoo ngi ñaan yàlla mu fekk la ci jàmm noonu la ñu nuyoo mboolem Europe gépp di nuyu waa États-Unis d'Amérique di nuyu waa monde arabe waaye di nuyu pays asiatique yi ak sunu bokki africain yi ak mboolem fu ab sénégalais mën a nekk rek te di ñu déglu ñoo ngi ñaan yàlla waxtaan wi fekk la ci jàmm dañ dégloo ko xel te bañ koo dégloo xol ndax barewaan na waxtaan wu ñuy defoo am na kopp da koy déglu réparé ci ay erreur am seulement mu réparé ci erreur waaye daf ni fexe ba jokkook noonu di nu sant ci am solo gi nga xam ne émission bi am na ko solo ci moom waaye am na kook nag moom au contraire da koy jëlee côté positif bi jàppee ko ay xaste au lieu ko mu jàngat ci waaye day jàpp ne dañ koy interpeller directement te ñun amuñu choix boobu duñu citer tur muy personne ndax waxuñoo kenn nit ci ay fee la ñuy wax fee yooyu nag képp koo xam ne gis nga ca sa bopp rek la nga ca war a def rek mooy nga jàngi ca réparé ca say erreur waaye bul ko jël rek def ko ne maa ko tax a jóg ndax loolu day nuru xaste ak weerante te noonu loolu taxul émission bi ñu taxawal ko ndax ku ko tàmbalee ci numéro première ba deux cent un yaakaar naa ne loolu xaste rek waru ko tax a mën a jóg waaye dañoo am habitude boo xam ne nag nun lépp lu ñuy wax sunu bopp lañ ci tàmbalee waaye non seulement suñ bopp waaye am na ñuy bokk yoo xam ne ay mag a ngi ci muy suñuy mu ak suñuy petit frère yoo xam ne lii nii wax ñi ngi ci biir te xam nañ ko kon jàpp naa ne bu fekkoonte ne dañuy wax di am lu ñuy bàyyi suñu bopp la ñuy jëkk setal setal suñu bokk waaye ku yàgg dégg suñu waxtaan xam ne ñun yooyu buñ ko xel ndax dëgg gi moom bu xasee jib rek ñun ci éditorial boobu la ñuy teg suñu tànk fexe ko mu véhiculer pour àddina si mën cee jot kon loolu rek mooy solos ubbiteg waxtaan wi ci numéro 201 parce que ne ñëw nag ci benn poñ boo xam ne yàgg nañ koo siiwal yàgg cee gis ay kaa mu nekk loo xam ne avantage amu ko te loolu ëllëg dana ci am ak kont suñ boroom waaye non ëllëg waaye nattu sax yàlla dana ko teg ñi koy def ci àddina ba seen àddina jaay taxoon ñu di ko def sax tey mujj yàqu loolu ñaari poñ lay doon yoo xam ne si xëy na bu ñu jukkee benn poñ bi li ci des danañ ko ci mën a lancer pour prochaine émission bu dee ci côté famille bi sëñ Mourtada Mbacke tukkeem bi yëpp ak sëñ Mbacke Mouhamed seen tukki bi yëpp ak stratégie bi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke taxawale woon daayira pour rawale li nga xam ne mooy sunu diine. ci àndandoo booloo tey dajaloo tey soppante tey dimbalante Cheikh Mamadou Moutada sol tànk sol dàllam jël avion ak at yi mu yore woon waaye di jeexaat ci lislaam ba digal taalibe yi ñuy boole seeni am am ak seen bëgg-bëgg tey dimbalante ci solidarité ci wàllu social waaye fexe ba am kër boo xam ne ci la ñuy rawalee suñu diine rawatina diine yi xale yu ndaw yi nga xam ne dañoo toll ci àddina ndax rawale suñu diine ñun mag ñi mooy kenn ku nekk nga sàmmo sàmm nag mooy téye sa bopp ba doo dugg ci loo xam ne nii bu ëllëgee da ko indil lislaam ci ay jafe-jafe te indil lislaam ci jafe-jafe mooy ngay wàññi lislaam wàññi lislaam nag boo ko waxee dana jar farañ fàcce mooy alxuraan dafay wax fi nga xam ne day digal ki nga xam ne mooy kiy takk soxna kii bu takkee soxna te amu ci choix mu takkaat amul choix mën naa dem ba ñeenti soxna muy masna wa sulaasa waru waru baaxa loolu maandute la fi islam di jàngale ak bañ ku ko moy kon nag su fekkee loola jàng nga ko wala jàngoo ko ñëw ci réew mu mel na réewum tugal rawale woo sa diine ci barab yi nga xam ne fa koy rawale muy dajaloo ci ndaje yi ci ndaje yi lislaam yi ci jàkka yi ak kër sëñ Tuubaa yi ak waxtaan yi mag ñi loola bu boobaa gaaf da lay daal dugg te loolu tax na am na fi ay sénégalais yoo xam ne ñii ñi ngi tudd seen bopp ay murit ñii tudd seen bopp ay tijaan ñii tudd seen bopp et cetera yeneen confréries yi waaye éducation ba war a nekk ci ñoom nekkul ci ñoom ñu ñëw topp seenu ndaw takk fi ay soxna moo xam nationalité yi nga xam ne ñoo fi daje muy nationalité italien wala nationalité espagnole wala nationalité et cetera même africain comme yow waaye bokku leen Sénégal déggantewu ay làkk nga gàddaay daayira yi gàddaay ka sëñ Tuubaa di dem ci discothèque yi di fecc dem bay jël aw ñolo di ko nan dem bay tox dem bay sàggane diine dutoo ko julli te julli benn waxtu koor waxi noppi ak ya aju ci diine yépp nga takk jabari tubaab te l'islam dafa interdit jigéen ñi l'islam ju dem ji ci ku mbokkalul diine waaye digal na góorug l'islam mu dem takk ci jigéen ju mbokkalul diine ci kaw nag nga jéem ko orienté ci sa diine soo ko mënta orienté ci sa diine nag nga bàyyi ko ca lam nekk waaye li nga yor nag yow bu mu ko récupéré loola l'islam daganal na ko waaye gis nañ ne loolu lépp Sénégal yu bari jalgate nañ ko jël seen temps lu toll ci ay fukki at ak ñaar fukki at takk ko fi jabar mu imposé <coughs> maa ngi jégalu mu imposé la seen culture seen culture mooy seen aada tàmbali di la dugal ñoom ci seeni barab yi nga xam ne lislaam daf la ko interdit kon ma ngay wàññi sa diine nga tuur nit ñi lëndëm war na ne man kii dama koo tuubal te yow moo xamoo sarti tuub doo julli xamoo dara ci masala xamoo dara ci loo xam ne ci luy defar sa diine la wala loolu sa diine digal waaye ndaw si ma ngi lay yóbbu ci ay bëgg-bëggam ngeen am doom bu fekkee am murit nga nga tudde ko sëñ Tuubaa bu dee góor wala nga tudde ko soxna jaara bu dee jigéen bari na fi lool ay xaadime ki soxna jaara jamono ñëw jafe-jafe am sa digganteeg moom ngeen xëy divorce mu xëy ngeen séparé wu mu génnee la kër ga kalaame la police amatoo retour ci sénégalais yi ngay mujj di taxawaalu ci mbedd yi ba mujj nga def ko lay sar nga génn complètement ci société Sénégal yi ak société l'islam bañ àgg ci di la wër di ko annoncé ci rajo yi ak di ko wër ci réseaux sociaux yi pendant des années te bi ngay ñëw fii wut si loo mën a soutenir sa njaboot moo la fi indi fekk kee nga takk bàyyi nga si diine bàyyi say mbokk bàyyi seen culture muy seen i dayra ak seen i association bokkoo ci benn association bu ñu la mën a notifié gis la ca amul xam ne finalement ñi ci ñàkk seeni i bakkan sax dañuy koy topp ba xam ne Sénégal dana wax ko communauté sénégalais yi ñu dem annoncé ko ci dayra yi wala màggal yi nga xam ne ñoom ñooy jël seen volontaire jël photo yi taf ko xam kii fu mu dëkk dajale lañ am jël yóbbu ca Sénégal doom yi nga fi amoon ñuy xaadim rasul wala soxna jaara daadi di topp seen diine yi wala di seen yaay gëm nekk ay chrétien di def li chrétien yi def te yor xaadim rasul yi wala mu yor turu soxna jaara di naan sàngara di tux di def li ko lislaam tere loolu bu fekkee faatu nga da am responsabilité digg ak mag sa digg ak yàlla ci kullukum rahin wa kullukum wa kullukum masulun an raiyati ku defee ñooñee nga jur nag te jur leen ci lislaam ñu def wàññi ku nekk ay catholique foofu ngay wàññee sa diine ndax wala seet nga gis lislaam am ci ñu volontaire di sol seen dàll di dugg ci àddina bi leen dugal ci diine yow nga ne ci biir diine ji nag di jël ci diine ji di génnee di dugal feneen am ci lañ lañu wax rek séparé wu ak seeni jabar daal di nekk ci seen business yi bopp waaye doom yañ ci amit gis nga ko rek maam jaara wala sëñ Tuubaa wala Cheikh Ibra Fall wala et cetera nga séparé seen yaay nga leen mujj gis ñoom it ñu jël ko dugal ko ci seen diine loolu li ko def ci ay nit kenn xamul ni mu toll te ay mukallaf lañu kon point boobu gis nañ ne bari nañ ak ñi nga xam ne dañuy takk ay sénégalais comme ñoom ci réew mi wala ñu indi leen fi xemmeem leen am ak ñoom doom xëy abandonné leen ñu yor seeni doom te xam nga ne réew mi yor fi doom dafa jafe léegi mënoo ko boole ku liggéey te mënoo ko boole di yor gone yi ca fayum location bi yépp mu génn abandonné la bàyyi la xale bi mën naa dem ba xëy soppiku duggaat ci diine ji nga xam ne mooy diine ji nga xam ne ci la nasaraan si nekk wala même bu desee nekk jullit it gisul kenn ku ko accompagner ndax mere na ki nga xamante ne si mooy baayam tàmbali di wër di fo di naan sàngara di tux di sàcc gis nañ ne ñu bari ci senegal yi am nañ seen doom yu dugg ci guute googu kon foofu it ay jafe-jafe ngi fi yoo xam ne kenn mënu ko wax ak ñi nga xam ne seeni jabar lañoo dem bu génnee leen te amatuñ retour ci communauté Sénégal yi ñu mujj nekk ay collecteurs nekk ci gaar yi ak nekk ci keesaay yi nekk ci mbedd yi di taxawaalu ba finalement da ngay dégg ñu annoncé na am na benn africain bu dee gis nañ ci kaa yu dul jeex beneen bi ci des nag mooy ñi nga xam ne it xamuñu ci lislaam dara bu dikkee seen intérêt la ñuy xool. takk ay tubaab fen ko ne ko umma jabar te takk ay jabar ca senegaal ba am ci ay doom dikk intérêt tax nga takk tubaab koo xam ne si mat na la yaay walla mu mat la mag walla mu màggat walla ngeen maase nga ànd ak moom ne ay kayit nga ciy wut am ay kayit daal di xëy rekk gàddaay wala nga am ay problème ak moom mu xëy ne la léegi dañuy divorcé wala nga tamaande ko divorcé dese say kayit ba nga koy takkit xam nga ne kii amoo ci moom intention yor jabar waaye da nga cee takk ngir intérêt loolu c'est interdit l'islam da ko tere waaye dañ cee gis nag baadoo la goo xam ne muy tooñ l'islam ba pare di ko bàkkoo wala nga di ko naqaral mooy taxaw ci YouTube yi wala nga taxaw ci TikTok yi di wax naan gis ngeen tubaab bi ma takk mat na ma yaay waaye bi ma koy takk intérêt taxoon ma di ko takk nga di ko wax ci langu Kocc Barma ñëpp di ko dégg te wala fi mu toll moom ñu ko dégg bari na am nañu ko dégg mën nañ ko traduire tubaab yi bu demee ba àgg nag ci li nga xamante ne si mooy administration bi mën nañoo daal di commencé nag def ay vérification ci mariage yi nga xam ne ñu ngi koy def fii te xëy na ñëpp bokkuñu yem avantage yañ ca doon am yépp nga yàq sa bos yàqaale yooyu gaa yi. may wax ngay taxaw naan intere taxoon ma di ko takk intérêt moo taxoon ma di ko takk waaye xam ngeen ni kii mat na ma yaay loolu islam daf ko interdit booy takk nit da koy takk ngir yàlla boo ko deful rek njaaloo lay doon te njaaloo moom ku ko def rek wala seesi billahi sawara nga jëm te it sa àddina dana xat dana metti ndax yàlla bëggul koy def ndax sobe si ngay wiyaale kon bari nañuy takk jabar ay këyit rekk leen ci dugal te bu nu ko amee dañuy daal di abandonné danañ takk seen moroomi africain yi danañ takk ay tubaab ci partout dans le monde nag waaye nag baadoola ba moom mooy taxaw nag di ko bàkkoo di wane ne lii ma ci dugal ba pare dugal cay fen oo ma jabar ci Sénégal wax ju nekk nga jël ko dem di ko ci wax loolu ko ko ci defit tuutaar yàlla dana la nattu moo tax Sénégal yu bari gis nañ ne kàmb googu daanu nañ ci naka noonu it viol violé yi nga xam ne dañ koy dund ci seen biir it gis nañ ne am na ci baadoole yooyu dañ koy jël di ko véhiculer ci réseaux sociaux yi te loo ci xas sànni nag àddina bépp koy seetaan ngay taxaw di wax ne man samay kayit dama ko àbbu di ci liggéey loola bu demee ba dugg ci noppi tubaab yi am ku leen ko traduiral mën nañ ko topp te mën nañ cee mën nga cee yàqule yàqule ci ñu bëree bëri am nañu sax dañuy dem ba mayum kayit jot ñu am problème ndax nañu amee kayit yi baaxul te secret boobee day mujj day dem ba toj kon daal noonu Sénégal dafa mel ne secret ci boppam lañ mënta téye loo ci téye lu mu tuuti tuuti rek da ngay jékki-jékki rek yàbbi ko ko defee yàqule yàqulaale yàqu yàlla yi ñu ci bari loolu amoon na fi ci sésour yi ñu daan taf dantité yi ñu daan taf permis yi ñu daan taf liñ ci jàpp ci nit dugal ci kaso bi kenn xamul lim toll te kenn yi jël rek jéeg exploité ko tas ko di ko def te du ko def sax ci affaire professionnalisme da koy def rek ci bëgg-bëggam ba léegi ci baree bari di si lañ koy def kenn mënatu ko am na ñooñ dañuy àbbi kayit ba di ci liggéey dem ba jekku xëy war seen borom andil ko ca problème problème ba nga ko ci andil nag weesuwul nga dem di ci leb walla nga dem di ci tawal loo xamante ne si amul assurance reeka rek buñ ma arrêté wala ñu bind ma multu ci kayit yi lañ koy def loolu réewoo sa bopp ka nga koy seqal def jël kayit yi mu yite ko ci oto te waxoo ko di ci dawal sans bi wala nga def infraction joxe tur yi ñu bind ko ci ëllëg liggéeyatoo ci kayit yi wut sa kayiti bopp loola day xëy xëy màbbu ci moom xaj nañ ci ay kayit yu dul jeex te baadoolo yi mel noonu ñoo koy def am na ñooñ ëble wuñ ko defuñu ko dara waaye gis nañ Sénégal muy seen mbokk wala seen jegeñaale toll ci war a liggéey te manque ay moyens ci lu mel ni wàllu oto te amuti kayit nga jël ko def ci sa tur assuracel ko ko waaye ñoom duñ la delloo teraanga ja nga leen jox fu leen neex la ñuy jaar lu leen neex lañ ciy sëf mën nañ cee def false di ko jaay te bu ñu jàppee oto ba rek kayit wa ko miite assurance ko ci kayit woowu la lépp di këpp ci kaw ba pare nag lettre bu ñu la bind nangu woo koo signé wala boo ko signé it nanguwoo ko woon boroom ba mu am juróomi at juróom benni at mu xëy xëy xëy ñu indil ko ay leetar yu dul jàpp def ko convocation tribunal bu fekkente ne nekkul ci réew mi wala leetar yooyee jotu ci bu ko tribunal woowee ay yoon yoon te ñëwul mën naa wàcc ci aéroport wala mu wàcc ci réew mi ñu jàpp tëj nañ nit ñi nit ñi ci kaso bi am na ko fii la nekk. ci itali kii yoroon fi kër kër gu mag daan grossiste di def lépp yàlla dogal ay tànkam ëppee Sénégal waaye teraanga jam leen daan jii dañu ko fay li nga xam ne mooy ak goree di gu mat sëkk ndax dañoo jël kër ga miite ko ci yeneen i tur léegi nag dagg résidence te waxuñu ko ko ñu bind ko ay leetari yu joxuñu ko ko fekk ñi ngi koy convoqué mënuñu koo jot ba benn bés ñi muy ñëw jaar ci yeneen réew ba dugg waaye xamu ci dara ba mu demee nag ba li lijjanti lijjanti ko ba muy dellu Sénégal nag ci aéroport ba lañ ko jàpp ne dañ koy tëj lu toll ci juróom-ñaari weer jàpp juróom-benn te loolu ay sénégalais dong nga ko teg seen i moroomi senegal yi fii kon nag am na ñoo xam ne yemuñu am na ci ñoo xam ne si xalaatuñ ci. yéen dërëte Sénégal yi dara lu dul ak coxor tegu mat sëkk nga xam ne man ngeen lebal lu baax ñu fay la lu bon doonte lu bon la sax day këpp ci seen kaw waaye la nga am na ko ñàkk rek ndax am na Sénégal yooyu bëgguñu ku leen supérieur ci dara ndax góom la boo xam ne si boo ko yaree ci sa xol day dem ba day muur xol bi ba lenn lu baax dutu ci mën a nekk dutoo yéene kenn dara sa lu waay am ngay gaññi lu waaye am ngay ko say bët di tàmbali di xonq ngay tàmbali di wut ay pexe. lu ko dal ci lu bon nga sant te loo ko ci mën a indil ci lu bon danga te foo jar di wéewale ay secret loolu mooy pëñ weex na waaye deret moo ko lal te am na ci ñun senegale yii di dund ci biir réew mi te kaa yooyu liñ ci mën a wax bari na buñ doon cité ay tur musiba am waaye li ñuy wax kum dox ba ak si ceew xam nga ne lii nii wax am na te ñoo ñi koy def nag gisuñu lum leen jëriñ waaye kuñ mën a yàqal donte bokkuñu ak yow dara mën nañ laa yàqal rek ba nga yàqule ñoom jaral na leen ko moo tax jikko yii ñu jot a wax yi paase yépp nit ñu soxal ñooñu dañ koy seq ak seen bi sénégalais yi nekk ci biir réew mi kon mbokk yi xam naa dañuy taxaw foofu rek incha allah ba beneen numéro ñu ñëw ci lu gën a yaatu kon ñu yëkkati waat xasida yi rek te daal di taxaw foofu ba ëllëg.